football house bi tay ah, ñu ñëw ah, fii nii si programme bi nga xam ne Pa Modou Jagne moo ah, retire yen yéen a ngi si anda ak LS TV 1 fii si Gold Project bi su ko defé rek lepp lu nga xam ne mu ngi rek dinañ leen ko il fii nii si bi kër gi ma anda si ak cameraman bi kini di Ousmane su ko defé nak yop yaa ngi nara ñëw start ci fii nii si bi kër gi ñoo yen begudi yen yen a ngi si anda ak LS1 TV fii nii si bi kër gi jere ngeen change

Legend. Yeah, today we are here to celebrate the legend, you know, the captain, you know. Yeah. Yeah, my name is Yenu Gambia. Yeah, so today we join the rest of the world to not uh, the Gambians that like to celebrate the legend. That have been here with us since the under 17, under 23, under 20, and now he's the captain who lead us to uh, the, our first ever AFCON to Cameroon. So history will forever remember this man. Our generation and generation coming will ever remember who Hupa that. Giant dies. So today that's why we leave everything that we're doing to come and celebrate and say only say thank you, thank you, and pray for him, you know. Lum can Ken do go the at Gambia because Moko star. Who go def at South Africa? Moko def. Thank you. Wala bu ndaw rek laajte lan uh, moo waral sa tànka fii ah waaw di sant yàlla rek because dañ ñëw fii tey pour eh, def nañ lu bari si yëfi football ak yëfi fo so moo tax tey bu mu xewlee ñu bàyyi lu ñuy def yëpp pour ñëw teewee bés bi so di ko ñaanal moom tamit tam nga rek lu mu bugg si life si carrière am tam yal na ko yàlla may. Eh. ndax moom ah, retirement ah, ah, ñun bettuñu. because moom every time dañ dee wax dañ dee waxtaan because Gambia pour play fi easy wut. sagatuma nga nekk nga yàgg nga nga teel a play football comme ñun suñu maas yëpp ñun dañ teel a football waaye moom moo ñu gën a sori. so moom Gambien bi ñoom ñoo tax bu retire because wax bi wax dafa bari waaye sant yàlla dem na ba ci level bu mu bëggee retire yàlla ko ko bu achieve ko so yan ko yàlla gën a jàppale daal. Hmm. maa ngi waaw li fi suma tànka mooy gannaaw bu juru sant yàlla julli si bi sallallahu alayhi wa li suma players kenn du si Pa Modou Diagne bu ko ñun Pa Modou Diagne rakala bu ko magam Demba Diagne sax bu play ñun ñoom ñoo ko magoon waaye itam ñu dem bi nga xam Pa Modou suñu di play day one from Gambia ba bu dem professionnel level am yëpp fàttewut gannaaw bu ko all ñu mu xamoon ba léegi ñooñu la moo ñooñu la day te man mii di wax ak moom defal na ma lu bari yoo xam ne bi maa takkaak bi maa ngénte yoo xam ne yëpp da ko day mën a explain so loolu moo war suñu tànk ba pare sant yàlla because ñun Gambia xëy suñ suñ leebul amutoon ci African Cup te léegi dem nañ ba ba léegi ba foofu noonu te moo ñu capitaine so loolu dañ kontaan kontaan boo xam ne ñun tam mënu kenn mënu ko express so ñuy ñaan xale yi ñëw sax ñu dem ba loolu mën a xappun suñ ko fekkee wu ñeneen fekkee ko comme ñu mel ni suñ yu mel ni ñoom ñoom Obi ñoom Ousseynou Ndiaye ay ñeneen nañee ñoom Gabi Socé ñoo ñëpp dañ dañu daan dimbale si football. waaw dégg définite dégg la moom moom moom moom daan bañ na ko ba nga xam ne bu mu demee benn dénk professeur Richelieu su ñooy play war nga wasa dafaa ñëw toog waaye ndooy daf dee mën a advice xale yi bi fay daf dee mën a advice si magam yi. soo ñu ñaareel soo ñu fekkee ñu toog ak moom sax da ngaa foog ne xëy na ñun ñëpp ay morom leen te fekkee ñun sax magam yi sax ñoo ñoo ko mat dafa dañ dem ba nga xam comme ñun waa Banjul dañ dem ba miin loo xam ne doo doy mën a xam mag a xaleel ñun ñëpp dañ nekk soo loolu moo ñu tee boole ba si tey bi dama mën a dem liggéey waaye ñu ma ko waxee dama ne du ma dem liggéey bi oboo sax mu nekk ngoon bàyyi foofu dama koo teewee bu ko suñu xale la maa koo ñaanal nag di ko ñaanal Gambian football la si yëpp jërëjëf mm. ah, asalaamaaleykum maa ngi fi jaamare ah anak kontaan rek anga wabanyul Banjul moom waa Banjul rek nga Pa Modou Sala depuis taimindu luñ ko xamee jom moo def fu la fayda la A ah, mo ñii nag ñoo play lu bëri waaye comme ñun Banjul moom ñu ñëpp a so time to time dañu mën a warga warga wala seetaan nawetaan xam nga so mu nekk ni ko xam ne ku baala captainal Gambia bi play si onday ñu seetaan ko si so su xewlee bes ni ki tey nu mun a demee yow dañoo bàyyi lu ñoo def yëpp ñëw fekkee bés bi parce que ah broda la si ñun Banjul wa banyu Banjul waa Banjul rek nga fo mun a dañ la fekk ji so moo tax bu ma boy ne ma ne ñu ngi demee nii la ma ne ñu dem doole ma fi bàyyi laa jaajëfal yow it lu bare bari ah, su ko defee ba tey rek ñu am fii nii ah, ah, beneen jongo ma moom it donc fii nii tey si bési Paa Modou Jagne bi nii ñu gis mbégte si sa kanam bi laaj la tey noo dundee bés bi xanaa kontaan rek Paa Modou Abdoulaye laa ko xamee suñ kër la daan nekk ku yaru nekk ku baax ku am diine bugg a réewam di des si dundam mel ko yàlla ubbil ay xéewal yu di toog ba doomam yi di play national moom tam lu mu a def yëpp si kaariyam so amul dara lu si beta Oke. ba ba ba ba tere ga ñu ñëwaat ñu ñëwaat ñu ñëwaat si yow ñu ngi wax ne former uh, under 17 uh, gola ba tey rek uh, Momodou Jagne football lu rek lan ñu mën a wasi si moom. ah Pa lu ma mën a wax si moom moom bari na moom. because play nañ fu bëree bari moom. play nañ si under 20 bi play si senior team bi so play nañ du ports ñoo nekkoon ports ba time mu tukki di dem Suisse yëpp moom foofu la ma bàyyi. so am nañ jaar-jaar bu bari jaar-jaar bu bari wa wax dëgg hmm. ah, ba si carrière am ah, dañ daan gis affaire si léeg-léeg daf daan difficult torop ah, ndax yéen daf daan ut ay advice si yéen waaw Pa Modou moom dafa nekkoon comme comme suñu mag mais bi mais moom lu ñu magee ay mons la waaye dafa am ñaan dafa am ñaan waajur so dafa yaaga dimbale ñeram bi dafa yaga dimbele famille te ñun mi sax daf ñu yaga dimbele so mom mom leadership bi dal mi bi daf ko daf ko def si mom, après dafa dafa déggu Pa Modou dafa déggu So, jëflantee mom sa, keneen sa yodu ko xam mi bi da nga jëflantee mom si lo xam mom moy yoon waaw dulu ta mun na ko seere si mom man mom. defal na lu nekk moo tax bés bi fom jaar ñu ñëw ñun ñëpp suñu ay mag lañ ñun ñëpp ay mag lañ waaye cër bu mu jox ñii sax man joxuma ko man dañ dee rusante su ma waxutee moom du jo mais bi thirty years thirty five years yëpp yëpp man maam moom la ak beneen boy bi pa George Cole soo jaar nañ fu bari ñii nag ñi tam mën nañoo wax si moom bëree bëri bëri bëri. ndax affaire yi retirement am me nii daf ko daan faral di waxtaanee ak yow. waaw moom am na benn time yi maa ji Gambia. bëggutoon a ñëw. because wax baa ngi bëri woon waaye ku dëgër fitla la. mu ne bàyyil bu ñëw mun a jàppale réew mi pour réew mi mun a dem African Cup te maaj bu mu ñëw noonu sax maaj boo dafa score moo nekk góolam boobu bu mu dee score bañ na am victory boobu noonu so lii moom. right time la mom, pour mom bu ritaaya si man right time la te mom jeun na décision bi jar na fu wara jar yi so sante yalla si lolu so amun si ben problème fu mu mom Benen, ah, brother beneen broda moom it ko rek ah, tey ah, bés Pa Modou Jagne bi ni eh, di retire si international football lan nga ñu mëna wax si Pa Modou broda. Pa Modou moom su mbugé wax mom mu neew fi elek waaw lu ma mën ma si li ma si mën a yokk rek mooy Pape Modou xale bu am yar la. bu am ni tey lu mu di saaf la man Pape ni ñëpp ñëpp suñu ay place leen waaye mu ne ko di wane plé mu sax mu sax plé warga warga ba mu xasee ba nekk professionnel wax ne mais soo sa waxee bu ne kaw man dafa am lu ma séntu su ma si àggee rek an yar bu ñu di wax dafa nekk si moom ku am xale bu am yar la dafa dégg ku nekk dafa li ma neex si moom du amul laaxa lu lim la amul mag amul xale dëgg moom daf la ko wax rek. so di ko ñaanal daal waaye tam ni ko dénk tam ne nit ki tam yow bu nekk am na moom bari fi nekk dem bàyyi toog nekk nekk sa place ñu dara moom si football la ko yàlla feeñalee na continuer xam-xam bu am cër bu mu am na ko continuer si xale bu mu toog na nekk si football mu dimbalañ mu liggéey ku mel moom di ko ñaanal daal yàlla may ko fan bu guddaa wér gu ak wér gu rafet jërëjëf abate rek ya, no besi ah, besi pamodou la dina am lu daw rek li nga xamne ding ko ci ding ko ci muna a te ñu gis la fii nii nga ñew tok lan nga muna a si besi pa waaw mom ku bax la mo wax dëgg man ñaar yi abdou ak jooj ñoo tax ma minante mom bu ba waaw ku bax la mom wax dëgg du bu ma xamante mom mom sa yu nekk mom dañ a waxtaan mom te sa yu nekk dañ ko lay ñaanal mom time bu bu ko yalla defal ko ndam mom wax ne pour am ko Gambia dafa jafe wax dëgg kos borom bax la wa bilay wa ñu ko ñaanal da ca ko ca kanam rek ay jërëjëf <laughs> su ko defé rek ba tey tam ñu am a ah, benen a ah, xalé bu jigen fini su ko defé moom ah, dinañ ko laaj si bési Pa Modou bi rek lan la si mëna a ah Pa diagne mol moom rabbi alamin kontan nañ si mom torop torop torop ñun Gambien si mom sil nañu ñun waa ñun tam ñu ko ñaanal yalla may ko fan bu guda ak wirgo yalam wa man lu rek la am pour wala pamol ku bax la wa te bëggal bo de bo ne pamodu da dafa retire eh, international football eh, naka la la mbir mi ñëwee ah mbir bi dal nu ma ya, moy ma sha allah ah man ba nga man ko mo lof ba mun <laughs> ya ñu la jaje fal lu bare bare su ko defé rek ju am fini ta suñu benen natango Ah, moom it ah, tey ah, si bési Pa bi ni moom it dinañ ko bàyyi mu am ñi nga xam ne dina def ak ñoom laajte ak tontu fii nii si biir kii ok gërëm bu baax ñu ngi fii nii si léebi euh, FIFA di laajte affaire Pa Modou bi waaw cameraman kaay topp ma ñu dem ok salaamaaleykum sama waay ça yaa ngi si jàmm. tur be. Ah, ah Pa Aliou Niane. Pa Aliou Niane ah Pa Aliou Niane tey seen taxawaay fii la. Um, dañ ñëw fii um, ndig Pa Modou Diagne. ndaa capitaine équipe nationale. Um, mu doon koo xam ne mu def carrière bu rafet. carrière bu exceptionnel te ko si professionnalisme moom nag yàgg nañ depuis xaleel ñoom ñoo play Ah, waaye man moom dama teel a ritaaya <laughs> ñun aayuñ woon waaw waaye moom li moo def nii lii foog na mu ngi soog a am joueur gambien bu ñëw ba def announcement pour ne mu ngi bàyyi équipe. defe naa lii biir Gambia. history la biir Gambia kontaan nañ ci kon liñ dee wax rek nit moom doo ñiit yëpp. waaw am na ci looy def danga xam war a xam kañ nga war a bàyyi. tam li may wax rek mooy african président yu bari li lee leen dee dal dañuy war a dem ba bàyyi ñu naan leen toog leen waaye nit soo defee palmarès bu baax bul bul ñiit yëpp buñ la may yëpp nga jël lépp waaw so moo tax lii ñu rafetlu ko ñëpp ñëw teew waaw waaye Pa Modou am na xarit yoo xam ne ñoom Demba Savage ñële ñële ñoom ñoo daan play Demba boroom yëre bu black bi Demba Savage la tudda kii njuga mom tam ak pamou du ñom bokko nañ club ba njuga nekkon na assistant coach tam waaw so ñom Ousmane ñi ñi ñom ñom ñoo dekkon ñoo grow up waaw fi mom ñepp dañ tew rek ni kontaan. mo tax ngeen tew waaw pour jafale ko. après li dafa neex xam nga gambi lim def ni ci coupe d'Afrique bi tel fa première fois mu dem fa ni am na lum yokku Sénégal win ko mu doon lu lu lu neex suñ sop région bi because ñoo wane fen Sénégal da do gis Gambi ci biir Sénégal. deug la mom Sénégal ak Gambi waaw man suma man Aliou Cissé. waaw man suma mam Casamance la juga. waaw so lolu mu ngay wane mbokk Gambi et Sénégal suma pa caisse la Senegal. Sénégal <laughs> waaw waaye moo tax Senegal ken Gambie Sénégal mënu waaw thank you waa LSTV one ok thank you very much ok xaaral ma jël kii nii tuuti ma jéem ko laajte bro naka mu yaa ah ok tey dama bëgg laajte tey lan mooy sa toogaay fii ah, te suma toogaay moom sant yàlla la ñu di ko waxaangum waaw di ñëw tey ci Pamodou Jagne du mun a wax lu bari si moom parce que fii jotaay gi bari na te waxtu gi bariwut waaye pour wax la lu rek ku dooree si anglais laa ko mun a waxee 2005 ba 2022 mu si équipe bi squad bi loolu rek doy nañ seede na kii liggéeykat la daf ko liggéey daf ko liggéey parce que eh, demal na Gambie under 17 Pérou ñëpp seetaan nañ ko 2005 play na Gambia si at yu bëri play na fii nii si Europe équipe yu bëri soo bés gisee su amee ne moom dafa toog pour bugg a noppaleku waaw waaw retire si football ñun amul dara pour ñu teew mu mo na wasa ñun amul war wara wasa ah parce que ñun ne waru na ñoo téw rek feñu fi ñoo si bés bi diko ñaanal parce que dafa bëgg baay football bu baay national bi amna leneen lu mo na nama pour def leneen lu nama te té yalla soppako rek dina na ko seela jappalé wa ñu ko doli ñaan waye contane rek mu ñu fi taxaté waaw ñu ma fi won sin three o'clock laa ñëw maa ngi tok waaw. waaw dëgg la dafa mel man ak yow ñoo ñëwoon. waaw waaw su ma gisee sa nga xamné dama soona sax waye bi jar parce que borom bés bi la té gaay ne borom bés du tuti Romla ya, tole lwa. Mede mede gina tamit yow eh, da nga bokon team ak mom xamone. Wa wa pa mo football nen. Wa football nen way ñun bu ñoo football sax ci jamono bobu pa mo striker la, ma striker. Waye mom ñu ñaar bokka dem play. Play len banjul ni ko. Waaw té la mëna wax li parce que yam ko laaj té lu mako wax lo. Wa play na mo ma mom ni ko. Mu strike ma strike. Waye after mom dafa mujjé bay striker mujjé defend. waaye moom la yàlla lu bari la. first time waaw waaw ba pare war a captain football football ba pare du football bi rek de ak nu ma waxee si biir mbooloo ak soo gisee su maaj bi jeexee su fa nekkee moom su waxee kaadoom nu digéeree anu rafetee ak naka la doon poussé gars yi di ga gis ne ñu ñëpp a ngi pili Europe ñu ñëpp a ngi sugi waaye moom kaadoom daf lay yóbbu si dëkk bi toogoon ne fi ñu fi marché boo xam ne microphone wax lu rëy waaw bi ñëpp a ngi toog président yi ñëpp toog mu dem bi ne leen bàyyi leen maaj mu football sa kuna am fiti dem ñu football so laaje bena bena sa leen ko de wax mum dafa am mën a doole waaw waaw te du mëna la tay du mëna wax du gàttale ñoo wax rek waaye contane ci mom te ñu koo ñaanal thank you waaw jërëjëf waay ok merci ok cameraman kay top mo ñu dem morom mu Pa de waa Banjul <laughs> wa bàyyi mo commencé ci ki rek so ko ndike ci ki mo su wéxé dafa ma jox fit non ndike ci ki waxal rek yëpp non ndike ci ki dafa ma jox fit <laughs> daan naka waaw sant yàlla ya yaa ngi si jàmm. ngi si jàmm tur be. man Ndiouga laa ah, ok tey la moo waral seen teewaay fii nii. waaw di sant yàlla rek. waaw ah, because of ah, ñun Pa Modou suñu la suma xale la. ko suma koojaam laa moo ñoom Demba ñi yëpp. waaye tam ñu jàppee ma mag. waaw so déglu saa mu ma tooñ sax mu ne maay seen oncle. so xanaa di kontaan rek. ci bés bii nii because of soo amee sax ay xale ba ñëw ba romba fa nga loolu sant yàlla because démb rek ma ngi koo tooñ ñu ngi ànda ñu dem fuñ dem rek gaa ko dee wax ne kaa ñu ma mu ne ko musuma laa foog ne dinañ dinañ nekk si dëkk bi ba ma ëpp nit <laughs> waaw loolu sant yàlla bu mag la waaw yàlla loolu la waaw ma ko wee loolu dafa waaye lii la di ñaan yàlla nga nga nga tere sa xale mu ñëw romba ma ne ko waaw loolu dëgg la fekk ñu ngi doon kaf nu mag a mag lii dafa baax ñun yëpp player lañ woon waaye lii musuñ ko am musuñ koo xelaat tam waaye baax na lii suñ ko commencé Gambien nag dafa am benn feebal nit duñ dañ dañ am ideas de waaye duñ ko dee nangoo génnee ba kenn def ko waaw su ko am naa ndaanu ko defee nii moo tax ma kontaan ci because of lii dina ñaax ñeneen ñeneen ñu jaar ci yi nii because lii mooy àddina waaw parce que lu mu def nii yombul loolu moo tax ma ko because ñun buñ buñ ko defee ñeneen ñi leen ci mun a jànga ah soo nekkutee di abal xale yi ñu ñëw xale yi duñ mus a ñëw waaw xale yi duñ gisee ne Pa moo doon fa Demba mu ngi nii Demba moom right now sax mënoon naa dem si African Cup dafa gis ne xale yi ñu fa moom dëgg la deful lii de waaye wone na ne moom bàyyi na xale yi pour ñu dem te loolu dafa rafet constantly te noonu la war a mun a demee moom moom def na ko waaye defeewu ko nii def na ko óonam rek waaw xam nga nag nit ñi duñ dee xam boo gisee ma ko wax nii mu ngi continuer play wa tey wante nit ñi xamaluñ ko génnewuñ ko nii pour nit ñi xam nga comme ni ko Paamalou defee Paamalou tey bàyyi na fii si squad bi waaye dafa continuer dem tiji club pour continuer pour play des na si lu mu bugg play waaw so loolu la xam nga nit ñi dañ dee jaawaale nit ñaa ngi jàppal ñeena ñi foog ne dafa bàyyi football tey xam nga waaw so di kontaan rek because of suma xale la suma everything la waaw definitely kontaan. léegi lan ngay lan ngay wax Paa Modou moom. waaw waaw waaw di ko ñaax rek si lim nekka mu ngi continuer si football am waaye tam carrière tam xaj na mu ngi am yeneen plans waaye man mun naa koo ñaax ne mu toppa si football bi def ay licence because of leader la waaw capitaine xam nga capitaine soo ko nekkee dang dee mun a nekka leader man bu ma nekkee woon capitaine moo tax ma ñëw nekka coach because dang dee am kaadu te ñëpp gis nañ ne am na kaadu soo na continuer si coaching bi waaw su defee mu dugg si boobu noonu def licence Iliga Civil mun na ñëw comme ñoom Aliou Cissé ñu timbe wa ñu ngi koo ñaanal loolu waaw waaw jërë ngeen jëf merci waay daal ok merci euh, bro dama ñëwaat si yow <laughs> comme nag ma senoon ma dem si fële ñëwaat euh, waaw seen oncle ok ah dama lay laajte tey sa fi ak yow sa digante ak Pa Modou well suma digante ak Pa Modou football moo ñu boole woon ñu nekkoon team Ports Authority then on the national team ay 2008 bi ma nekkoon di président national team bi fu ñu a tukki fu ñu a dem ma Paamadou Ñoolaan boo ko nekk soo loolu dem na tey nag ba nekk I don't know mbokk laa ko ooyee oo magaraka because tey lu bari suma koy def fu ma jaar ma kool ko waxtaan see moom te moom moo def fu mu jaar dina ma man lii mu def nii tey keroog ñoo na ba suma kër ñu toog di waxtaan bu gaa jógee Cameroon waaw ñu waxtaan si ba mu jógee Cameroon waaw dafa ñëw suma kër ñu toog si waxtaan si ma kontaan si ba ma ne ko li nga def is a good idea because lii amul benn Gambian footballer ku mu sax laa def lii. yeah I think this is the waaw mu ngi soo a happen so mooy li la kii wax rek you know xëy na tey ñu bëri mënoon nañ bëggoon amoon nañ di idea puis def ko waaye duñ koy def waaye tey lu Paamal de def nii xëy na tey ñu bari tey puis ñu mën koo def because of lu. nga xam ne képp kuy nii la koy defee. te nii la wala demee tam si yoon. waaw Paamal dina nekk ki nga xamee ne nii moom mooy loolu kenn amul lu mu ko wax. man moom mooy loolu daal anyway man su ma waroon a wax si Pa Modou foog naa mun naa bind book ba mu jeex waaw because of depuis ma xaritoo moom lu baax la ma musa woon waaw te man tamit si lu mën a nekk tamit lu ma mën a jàpp dama koo bàyyi parce que Pa Modou lu mën a xewle lu ñu mën a jàpp dañ koo bàyyi fu nekk lañ dema moom nag waaw lii nag mu def ni daa ko yeeloo foog naa ne yeeloo na lu raw lii sax because of te nekk di force Gambian ku captain suñu dëkk bi yóbbuñu African Cup jóge African Cup loolu emu ci mu yóbbu ñu ba quarter finals mu nekk ko xam ne lii da la bëgg a nit waaw am respect koo ko gis xaritam la foo ko gis mu ngi kaf di rey kii nag moom su góor mooy doxale exact waaw kii moom play na moom ah. fa mu ñëw nekk suma coach so nag mu nekk suñu oncle ñun ñëpp waaw foo ko gis na lu nekk leen ko wax léegi-léegi ñu jàppee ko ko ni maam man maam la si man anyway so waaye Pa Modou moom ñu ko ñaanal nag lu mu jubtu yal na ko si yàlla defal jaama waaw looy la amal li ma wax thank you very much yow ya, li nga wax rafet na trop te wax bi nice na mooy loolu ok cameraman nañ lii sister. sista. maaleykum salaam. so yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm waaw. Ah, tey nag eh, lan moo waral sa toogaay fii ah, nii. ñëwoon rek pour kontaan si Pamodou Pamodou suma jëkkër la ba pare suma xarit la. Eh, ñu ko eh, ñëw si retirement bi mo def ni nga def sa carrière be tok be time bo xamne fil nga ne mu nekk ni jot nga retire lulusan sant yalla bu bari la na naa ñu ñëw rek boka mbekté bi boka achievement sim am yépp di ñaanal yalla nako jik yalla na bu mu lu mu si football di ñaanal lepp lo xamne lu mu bebet la su demé ba retire yalla nako enjoy yal na a very good role model si nga xamne ñoo nekk di upcoming footballer si ni ñu jang si mom parce que wax dëgg yalla li da bu exceptional la. ba pare lii muy first time Gambia ba pare mom moko ko def bir Gambia nsi. ni ba pare youth Gambian si dañ ko wara dañ wara xol a xool si di jang si mom lolu dëgg la loolu la xam nga suñ la jitalé da nga wara don doon kay té mom woné na lolu bu baaxa baax. because gisuma kenn koo xam ne am na dara looy tilimal si moom wala dara looy sport out si moom loo xam ne moom góor dëgg góor dëgg la nag moom kenn dégg ko si lu ñaaw kenn gisu ko si lu ñaaw so wane na ne moom lii da la te yàlla la kenn koo xam ne daf dee wax ne ah Pamodou lii lu négatif wala dara so te nit ñi am nañ seen bët di xool so suñ ko gisutee rek kon nekkut si moom so ñu ngi koo rek yal na ko jik yal na toog bee di ko defal ñeneen ak ñeneen yéen a toog ba doomam bi Mouhamed bugg football moom tamit mu toog ba diritaay papa am fekkee ko jërëjëf. amiin waay merci beaucoup merci merci. Euh, bro sa wax naka yaa ngi si jàmm. tur bi. Lamine ah, toogaay la la bëgg laajte tey lan waral tey. Oh, And, um, you know, Sumatewa that is because of Captain Dada, you know, of um, the achievement he did already. And then, um, you know, you know, best dal boy, boromam la more tolo. I just can't explain much, but it's, just sort um, for repping directly, you know over happy, you know, overwhelmed. I'm over, over happy. Yeah. Munuma expressed deeply. I, I, can't even put it in words, though. I'm over happy and proud, you know, to be part of this moment, you know. Yeah, I'm happy that. Yeah. Okay, thank you very much. Thanks a lot. Okay. xaaral ma ñëw côté bii nii man yaa baajan yaa baajan ah ok tey sa teewaay laa lay laajte lu ko waral tey man Paa Modou suma jëkkër la waaw parce que moom suma jëkkër xarit ci benn bakken lañ ñu ñëw pour show support rek waaw di ko kontaan trop si fi ñu yóbbu ba pare Paa lu mu def nii nii musul am Gambia ba pare moom dafa wone euh, good example na dëgg la ñu am ci fierté trop ñuy ñaax xale yu góor yi moom tam ñu am jom rek parce que jom la bari te ñefekat la moom tamit dem after lii yal na yàlla ubbi wërsëgam mu gën a bari. ba lan mooy sa advice si yeneen xale Gambien si si topp football ñu gën am jom parce que ku nekk looy def rek boo sa amee jom rek di nga si réussir loolu la ñoo ñaax xale yi ñoo def yëpp ñu def ci fulla ak jom waa te jàppalante. lépp li nga wax nak deug la parce que jom mom moy lepp ak jappalante yermande si bir tamen ok merci beaucoup waaw ah, jërëjëf <laughs> xaar ma gis sama daat bi fi daat salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, tey dama LSTV one ñoo ñëw pour laajte la sa teewaay fii nii tey. waaw suma ah, Diagne mi def press conference bi ñun ñoo ko amee woon Port waaw ko ci play xaleel tamit waaw moom ah, ba tey yaa ngi ñu gis fii ah, moo tax tey ñu ñëw pour teewee press conférence bi moo def nii xam nga ah, dafa tam waxtaanoon ci bi mu ñëwee ak bi mu waxtaan all the time man maa mooma ñoom Njuga ñoom Demba Savage ñoom Demba Diagne ñoom Tafa Mbaye ñoom Abdou Boy waaw ñoo ñëpp pleeloon nañ national team bi waaw xanaa di kontaan tam ci lii because lii musuta am Gambia waaw wax dëgg ne yàlla waaw lii musuta am Gambia xam nga waaw soo su lu mel ni amee ah, dafa dimbale tam ñeneen ñi nga xam ne suñ ñëwee ci national team bi gis ci àddina rek dafa am waxtu so su waxtu bi jotee rek ah, ah, war nga ko jox cëram woon ko rek ne ko at least fi woon waaye fi mu nekk mënatuma because of li tax mënatuma mooy nangam nangama nangam su ko defee nit ñi understand ko. comme moom lu mu def nii yëpp góor dëgg. waaw waaw waaw moom ni mu def nii ah, ah, ah, dafa neex dafa neex pour dem Africa Cup du under 17 du under 23 du under 20 du under 23 du national team liggéey nañ ci benn noonu lañ joxee gannaaw dem bi tey gannaaw dem bi. ah dañ ci waxtaan all the time ko dee wax ne ko. li ma soxna waxoon rek loolu laa laa wax dafa am jamono soxna ne ma ñun ñëw yóbbu Gambia World Cup ma ne ko li ma soxna waxoon laa laa wax yéen yéen a muñal rek dina ñëw mooy bés bi nii ñu dem def fa du rëy ba àddina si yëpp di ko waxaatoo ba àddina si yëpp kontaan. ah ñu jël suñ tur bi tegal ñu ko foo xam ne ba ba tey ñu ngi koo xalaat. ñu xamuloon Gambie xam ñu xamuloon Gambie fi mu nekk yëpp xam nañ Gambie te loolu dafa neex ci xol. waaw Modou nag Gambie amuñu fayam. non non non amuñu fayam amuñu fayam xanaa di ko ñaanal rek moom moo jabootam yàlla defal leen a ah, jàppale leen ak ak ñi moo bàyyi gannaaw tam ñu jàngee ci tam xam ne am na koo xam ne def na nangam ñoom suñ tolloo foofu rek ñu def. pour rafet rek waaw affaire yi moom nay rafet rek waaw nay rafet rek. ba lan ngay lan ngay advice comme youths Gambien si ak player footballers si ñii di ñëw nii. non non non li ma leen di advice rek mooy ñu xam ne ah, play bi ah, foog nga jox ko jox ko waxtoom. football da ko jox ciram football da nga football du dara du training. football is all about training. Ah, ak lu mu mën rek mégal soo yow yaa ngi train su koolob jotee rek nañ la <laughs> te suñ la koolee rek so ñëwee rek di nga def dara waaw. honorable minister of youth and sports léegi jeex na fi maa lay gërëm di la sant bu baax. the acting president of the Government, Mr. Bakari K. who also uh, I can say is a mentor of DA. Uh, today you will hear some history. With, the DA. Executive member does, Father, our God, who is also sitting here, mashallah, uh, the Director of Planning, uh, Youth, uh, uh, Minister of Youth and Sports, Mr. Sute Yao, the Director, the family member who has two hearts today, our big sister, the family, uh, Kumagai, but also a National Assembly member, uh, her little brother, Modu uh, been going around to ensure that all these things are in place. Well, today we are here. We are here for something very important, something unprecedented, something maybe I cannot remember. There are veterans here who can say this, who can maybe prove me wrong or right, uh, that whether we have ever had a formal big announcement like this. I'm not going to tell you what the announcement is the person himself will, will, will announce that. What I can tell you that I'm sure the world is watching It's going to be a big announcement. Uh, without much ado, before we get into the program proper, we will have to invite the person who, uh, who is the reason why we are here. Our captain, you are highly invited to come and take your place uh, for the program to formally uh, uh, start. Family. importance of this is this without sitting here is also being influenced by the same Kalai Komachi. I could recall after war, Komachi is a Manchester supporter, and I'm a Manchester. We'll go and watch the video. That will be Thank you. Ministry of Youth and Sport, my colleague Sadiku Kamoso from the Gambia Football Federation, the General Secretary and uh, senior members of staff of the Gambia Football Federation here present, our indispensable, infatigable, great captain, Da, our dad, members of the football family, the journalists here present, Honorable Tumanjai, all protocols duly observed. Honorable Minister, I was to first uh, extend the apology of the President of the Gambia Football Federation, Lamin Kababajo, who couldn't be here with us today because he had to leave uh, at the invitation of FIFA to the Club World Cup in, in Qatar. He's already on his way. He tried as much as possible to be here, but because of the ticketing arrangement, he could have left. He had to leave. But now I'm sure you will see his message to you later on. Today is a bittersweet moment for the football family. I think uh, the must, <laughs> but out of the car but already because we know where, where we are here today. I am sure you will all agree with me that even though this is a moment that has to happen, but we never wanted it to happen. That is why at the GFF, we haven't planned really. So everything happened so quickly. And uh, before I continue, certainly, Pamolo, we have another rendezvous with you because the Gambia and I'm sure the Honorable Minister will agree with me. Never stop honoring you. We will have to do another event. And I'm sure there will be many more events in our country. as known. Today, you are a household name. You have contributed so much to our country. I don't know how we can pay you. I say thank you for once. Like the chairman of the occasion has said, I remember you playing at force. But in 2005, maybe subconsciously, you cannot remember all. But anybody who's involved in football or in management know that this gentleman is a leader in the making from that day. The Gambia hosted and won the under 17, and we were African champions. For the first time, there was an elaborate plan being made for the preparation. Is the one who actually stood up for the group and say, this is Africa. We are going to the World Cup. The Gambia Football Association at that time have to prepare for this team. And I see that happening over and over and again. Is it not true? The GFF, GFA then had a program that we went through to England, America, Florida precisely, Costa Rica, and then finally to Peoria even though you were not the captain at the time. But he was the leader. It shows that 17 years journey of selfless service to his country. This is why we are here today. This is why we are here to say thank you. And we are honored to have our honorable minister within our means. Allah make things for reason. It's a big day for the football family, and it's a big day for me personally, because for 17 years, I have seen a young man become a man. He has a legacy that is so immense. Many people have come, but his own is unique. But more importantly for us at the GFF, and I'm sure Honorable Minister will agree with me. Because we want people that not only play football, but graduate into management so that the foundation that they themselves laid, they can even build higher on it. This is the opportunity that these gentlemen have for our country. It was not for, meant for long speeches, but his work happens in the background. Technical, administrative, and logistic. But more importantly, keeping the discipline. Pamodu Janda is the glue that keeps the Gambia senior national team together. Because as a federation and as a, as a country, we are not endowed with all the resources that other countries and other teams that we meet but he is the one who led the players to accepting, to accepting that the GFF has agreed with. And along all this journey, regardless of whatever is being said, unlike other countries, we never had a dispute about pay with the senior national team, thanks to this gentleman. I think he deserves a round of applause for that. no matter how hard or how difficult it could be. He is the one that keeps the group together. We thank you immensely for that. At the beginning of the campaign, we participated in the qualifiers against Djibouti. It was a difficult journey, Honorable Minister. We had to fly from here to Casablanca and wait for eight hours. From there, we had to go to Qatar and waited for another nine hours before we get down to Djibouti. And it's the same routes that we came in. There has never been any noise because of Pamurijani Dam. I want to end by really standing up for the football family and say thank you. From the bottom of our heart, we say thank you. Thank you very much, family uh, blow his own trumpet. That 2000 famous 2005 uh, tournament that also led us to the World Cup. And you remember the famous defeat of Brazil. These are records that I will never forget. They are like engraved in my memory. Um, he was the architect of those uh, training camps. Omar will drag us to the office <laughs> anytime of the night and the day we have worked. So really, you also have played a part in that journey, and I'm a witness to that because I was there. Uh, thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. We will have to watch. So before you play the video, madam, uh, allow me, because after the video, then I'll pass the baton to the minister. We are blessed sports people, like Bakari like to call it, football family. We are football buyers. But the minister is here on sports the minister is here for uh, sports. I have seen this man in the just ended tournament in Cameroon. I've seen him sit with the boys at the Ataya Bulls. I saw him interacting with the lowest level among our ranks. I've seen him listening to anybody who he thinks have an idea, you know, to make things better. He has his, his modesty and humility unmeasurable as far as I'm concerned. This commitment to the work and this love for sports and youth matters, you know, um, is unprecedented. It's unprecedented. It's unprecedented. It's true. And it's been a long. Uh, uh. This also has something I told him in the presence of the, His Excellency the President. That's luck. I think he has luck. Um, when he came, it has always been triumph upon triumph. Uh, Honorable Minister, we love you. Uh, like I told you in private, I'll say it in public. And uh, we're happy to work with you, and we are sure that you will continue to support football. But one thing I can assure you, now, because of our performance at AFCON, there are thousands and thousands of young people who believe that they can make it in this game, in this field, or in this career, you know, uh, than even getting to university and having a formal work to do. So keep it up, and you can rest assured uh, that the, the, Football Federation, uh, and me, I can talk about the administrative part, but I know my boss will agree with me, will uh, continue to collaborate with you, with you personally and the ministry uh, to make things happen. Um, this is now a family affair kind of 他们就是快。 Summerfield Park in Birmingham and they play football, Maud Musa was telling us that you had a trial in Sweden and I was so happy when I remember I went back home straight afterwards and I sent you a message The other thing I would want to talk about is like thank you very much. You know, thank you very much for the memories. And the last you know, the last three weeks, four weeks of the

of the country, but my dad said he would have to say something. And I agree with him because this is, this is his soul too. He brought Pavon up. I think it is important. Even if you're going to say one word, watching football, as a stubborn young girl, I would steal his Benson and I would swap it for the cheapest cigarette in town to test whether he would see whether what he was smoking wasn't his Benson. And he never notices that he was smoking I will thank my brother for sticking with NDA, not only for himself, but for our fathers. I say fathers because I had many. I had my dad, Usenu, I had Omasi. I had Uncle Babu, I had Keba who is the only one that is still alive with us, so I must mention him. I also had Uncle Tafango, Uncle Tafango, Uncle Tafango, what I do today. It's not only for Banjo South, nah, thank you. And when I saw what Uncle Munta has said about you, I was like, wow, no wonder. That is our Nda. We thank you very much. And Jan, thank you for giving us Nda. You have not retired. You have hung up your shirt, but your shirt will live with us. I was touched went back, said that you took off your shirt and you gave it to Murmusa for my favorite dad, Omasi, because he stepped on where my dad left until his last breath. We are not short of that. They are gone, but they are with us in spirit. I was glad before Mudumusa went to Cameroon, he dropped a t-shirt with Obi only a brother. I have a dad in him. Thank you, Modu. Thank you very much for emphasize, but uh, really, you are right. You have so many guys, and those were people you put for That? So we will pass the mic to you. You can choose any language that you want to speak. You want to speak them? No problem. Thank you, sir. seeing Honorable National Assembly Member bi di Touma uh, nuyu Director of Planning ak Programme si ministry bi Mr Diaw ak Executive Director Sport Council Marcel Director Sport Council Marcel of course ñi fi nekk ñëpp President wala acting President the first Vice President yi JFF, Mr Jammeh ak uh, ex-co member bi Sadibou jasi di general secretary bi ah, ak ki nga xam moy mooy kilifa di fabi pamori tamit ñu nuyu la bor bi ak ah, ñi nga xam ñoy family members ci pamori ñi nga xam ñom ñoy ah, xariti ak football si fi nek general sport pass ci fi nekk ñu ngi leen di nuyu man nak suma wax bi du bari du gudda bu baax parce que ben comme ni waxe waxee GS rek mané ko bima ñëwé fekk expect mo né dañu ñëw pour wax parce que dañ ma wone cocktail la soo cocktail moom yëfi séeréer la ak kool ñëw lekka rek ñibbi waaye nag comme wax ji bokk na ci tuuti dinañ ko dinañ ko gàttal rek dina waaye di gërëm rek uh, ki nga xam ne ni mooy Pamodu parce que um, yaakaar naa players yu bari jaar nañ ci national team bi yu bëri play nañ waaye ku mel ni moom probable jafe naa gis uh, parce que not yu bëri ñoo dee am opportunité boobu pour wana mën a play si under 17 play si national uh, under 20 bi eventually nga egg si national uh, team bi so loolu moom am na record bobu. moom ak probably few other players ñoo am that opportunity boobu pour mën a def loolu waaye li si gën am solo mooy du pour am opportunity pour play 17 under 20 ak national team waaye ki nga doon ak nit li nga wone ci bi nga play ci under 17 nga play ci under 20 ak ba nga play si national side mo am solo te moom yaakaar nañ ñun bi ñoo seetaani football under under 17 boobu noonu yaaga na te yaaga nañ ñoom Pamour mi ak ñu bari ak ñoom Ziko ak ñoom Os Diallo ah, ñoom ñu bari yaakaar naa bàyyi nañ waaye moom ba léegi mu ngi ci téye te ku nekka xam na ne benn Pamour bi ñu gisoon many years ago lu passé fukki at ak juróom ci gannaaw benn nit kooku noonu moo nekk nii ba léegi jom ak pas-pas bi mu daan wone ci national team bi ci under loolu la wone ci under 20 loolu la tamit si national side waaye tamit almost everywhere fi mu play muy under 17 muy under 20 ak national side jox na Gambia ndam te loolu moo si gën a am solo parce que ñun ñëpp biir ne under 15 under 17 boobu noonu ñoo fi winoon tournament ba ah, ñu dem si Nations Cup bi dem ci World Cup bi te fépp fi ñu dem nen nañ fa jàmbaate te waneñ tamit represent nañ Gambia flag yi Gambia ci kanam uh, loolu lañ wone waat again biñ demee Cameroon ne under Pamodu leadership am um, team boobu no moo Yobo Gambia si AFCON for the first time after many decades of try so that is a, a record that not many people have and we want to thank you for that we want to appreciate all the sacrifice that you have done we know like the vice president first vice president said it's been a very difficult journey and while players in other countries make a lot of millions, make a lot of money for playing for their country or for the clubs, in the case of the Gambia, it's different because of the financial situation that we are battling with as a country. But these players, together with his core of players, have done the ultimate sacrifice of not focusing on anything that is financial, but trying to represent the Gambia and raising the flag of the Gambia to high heights. And that is one thing that us at the ministry level and the government want to appreciate him and appreciate every other person that has done similar things. But again, like I said, leadership comes in. There are so many people that are leaders. But you see the difference. When things are good, the way the person behaves matters a lot. When things are rough, the behavior of the person also matters a lot. Here we have a captain who, whether it is good or it is bad, he is always the same person who is providing that leadership to the rest of the team. And in difficult situations, he comes up, and sometimes, whether he agrees with what the players say or not, but as far as he is the leader, he believes that he needs to come out and represent the players and speak on their behalf. And sometimes he agrees with what they say, and he say, comes out and say it with joy. And that's one thing that we have seen. But again, all of us watch the kind of videos that um, he, they produce in the change room, in the the field of play, and you see the command that he has among his boys. And we want to just thank you for that, you know, and tell you to keep it up. I did not interact with him a lot. I said I've watched him over the past 15, 16 years, but our interaction started, I think, in 2020, after I was appointed. The first time for me and him to come closer was at Ozone Bay when we were playing uh, Gabon. And, you know, and there at the Ocean Bay, we had a brief chat, we talked about a few things, including what we need to do to improve our football, what are the challenges that they're facing that he thinks the ministry working with JFF would do to ensure that the players and the team get some of the things that they require. And I remember one of the promises that he made at that time was that they were almost getting to the uh, qualify. And he said, if we get this and this and this, we can promise you that we will eventually qualify to AFCON. And we did our best to do that and eventually Gambia qualified. So, Balmodu, as you retire, well, like you said, you're not supposed to say, but I guess it's already public. <laughs> you know, we want to say your role in football is not just to be a player. There's a lot that you can do. You've been a player, you've been a leader, but you can transform yourself into a manager. You can transform yourself into anything in the technical side of, the, of our national team or any of our teams but you can also have the opportunity to do the same thing outside wherever you want to be. Because we've had so many players also that have transitioned from being players to being, to being coaches, to being people on the technical side. And that you can do. But of course, we know the, the likes of Mr. Ndong, Sandong, and others. But as recent as yesterday, Senegal won the AFCON for the first time. And who won trophy for them, the coach, the former national team player. So the same thing can be done with you. In the next five years, six years, you can be Gambia's Aliou by being the former player who become a coach and becomes the one who will, who will win the trophy. That is um, something that we want you to do. And I think I told you that the other time. And I said, if you're retiring, I'm sure you will have a role to play. All the best in whatever you're doing. Um, of course, retiring players retire at the national side, but they continue to play at their club level. So hopefully you want to continue playing for your club, and we wish you success in that. But just one thing that I just didn't mention before I end my speech. And like I said, my interaction with him is recent. But in the short time that we interacted, I've seen a very honest person, somebody who speaks his mind. And sometimes we, I mean, some of you would see it, would see it in the media. Sometimes I, you know, go into loggerhead with some of them. But you know, but that's that's what it's supposed to be. The, the opinions are different, the views are different, but he speaks his mind and say what he thinks is not right or what he thinks is good. And for me, that is the kind of friendship that I want. And that's why within a short period, we have been able to develop that trust between us and we send messages to each other. When we need, when they need something, I update him regularly to know what is happening. Of course, I am not the contact person, supposed to be JFF, but because of the relationship, you know, sometimes we get that information or we get the information from me, And that is the kind of relationship that I want, that if some things are not going right, you say it's not going right. If it's going right, you say, well, it's not going right. If there is a mistake from our part, we take responsibility. If there's a mistake from their part, they also take responsibility. So thank you very much, Pamudu, for being that great leader. And we appreciate all the work that you're doing and everything that you want to do in the future. Be assured that the ministry will be behind you to support you in whatever you're doing. And as much as you think there is something we can do, let us know, and we will definitely do by side. So all the best. Thank you. Thank you. Um, I just brought a small gift. Unfortunately, it was not well planned, but I thought it was important that the family is retiring. We cannot just come here and just say something and drink and go. But we need to give you a small token of appreciation for all the work that you do. All right, so small, but you just want to say thank you. And uh, hopefully something bigger can come your way. Yes. All right, so thank you, everyone. Uh, our minister never disappoints. Uh, thank you very much. Uh, what a moving speech uh, by Honorable Minister. And, uh, Honorable Minister, I think you have described the character, the content of Amadou's character. Obviously, that's what you have just uh, is great. I think honesty and speaking his mind, <laughs> we all know something about it And that's what leadership is. Because at the end of the day, he also represents people. And he should be seen to at least protect their interests, which he has done and done perfectly. Um, now, before we get to Paramodu, of course, we will have another video. And then there is something going on here as well. I don't know whether people are paying attention to it, but something interesting is going on. Honorable Minister, thanks for the present uh, to this uh, great guy. After the video, I'm going to tell people, before Pamodu comes, I'm going to tell people who this gentleman really is. So I'm going to do uh, a kind of a bio. So journalists, get ready. Make sure you capture everything uh, so that you can report that on your newspapers and I'm sure those who are online, people will follow you. Um, there are things that people think they know about him. They don't know. I'll reveal that they don't know. I'll reveal that they don't know. I'll reveal that. pia because of your discipline, your attitude, and your religious upbringing you to Everybody is happy about you. Happy work. critical questions against defenders was also a fact. And the deadliest weapon, paraphrasing, was used Gracias. moving on. hay una After this announcement, he will be former captain. So as of now, he's the captain of the senior national team. The only captain, I think you are right, he's the greatest captain of all. Yeah. Because no captain has qualified Gambia to AFCON. So that is a fact. It's true. He may not be the greatest of all times for Gambia, but he's the greatest captain of all time for Gambia. He represented Gambia of course, in 20, 2005 U17 World Cup, 2007 U20 AFCON in the Democratic Republic of Congo, 2007 U20 World Cup in Canada, 2022 AFCON in Cameroon, we just went to AFCON. UEFA, European League matches that he has played, he played for FC Sion in the UEFA Europa League 2015-2016 against the following clubs. Liverpool FC, Gambia, oh, did I say Gambia? England. FC Bordeaux, France, Robin, Kazan of Portugal, and Sporting Praga of Portugal. You know, uh, Robin Askan of Russia and Sporting Praga of Portugal. He played for FC Zurich in the UEFA Europa League in 2018-2019 against Bayern Leverkusen and also against uh, Lanaka Sapros, FC Lanaka Sapros. Awards and cups that he had won during his uh, European football career. Swiss Cup 2017, 2018 for FC Zurich, Swiss Cup 2014-15 for FC Sion, Swiss Association of Football Players Golden 11 to, to 2016, Swiss Cup Runners of 2016-17, Best Gambian Overseas Player 2015, U20 African Cup of African Cup 2007 third place. Nda also is a philanthropist who played the video. He's the co-founder of Nda Mariam Deng Family Foundation, a charity organization aimed at helping to reduce the rate of maternal mortality in the Gambia, provided clean running water for villages of Kondoku, called yearly football clinic children aged 7 to 12. Wow, I didn't know he could speak all these language, languages. That can speak English, he can speak German, he can speak French, and of course he can speak one. This one, for me, is the moving part of the story about this gentleman, this great guy last mother passed away when he was only two years old. Two. His grandfather picked up the task of bringing him up. His grandmother, yeah, his grandmother bringing him up. And the grandmother had gyapalelen si suma carrière bi maa ngi gërëm coach si ñoo xam ne nii mus naa jaar si ñoom ñëpp wante maa ngi am spécial gërëm boo xam ne nii foog ma def ko pour Kaba Kaba Cissé li ma mun si football yëpp moo ko def si ma moo ma gis naka la ñoo kickee tennis even though depuis bu ma nekk xale maa ngi kick tennis wante moo ma jël woon ma naka la ñoo kickee tennis di right way xaw ma lu ma ko wax kooku dama ko bàyyee ak yàlla yàlla moo am fee yàlla ma ko feyal waaw a big big part ci suma football career amul lu deful si suma football career euh, maa ngi koo gërëm Omar Sy euh, koku dafa bokk si man so euh, ma ngay gërëm suma yeneen former teammates ak foreign euh, teammates yi ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax gis naa taxawu bi euh, di leen wax lekk ne ni maa ngi dinaa bàyyi pour playal national team bi wante duma leen bàyyi euh, lu ma mun na def pour dimbale leen dinaa ko def waaw du ma mus bàyyi football yi Gambia waaw dama jos retire pour play football rek wante dinaa bokkaa ñoom si lu nekk anytime buñ ma soxlee luñ bugga pour national team bi man pare na pour eh, ak nu mun a mel parrainage loolu noonu pour support team bi am not away dem ma fenn maa ngi fi ehm, maa ngi gërëm tamit eh, Gambian fans fans yi awma lu ma leen fay euh, gis naa taxawu buñ ma dee taxaw depuis si under 17 ba léegi nii am na si ñoo xam na nii dañ ma dee fàttali affaire yi under bi su ma gisee ak ñoom ñooñu awma lu ma leen fay gars yi support nañ ma encourage nañ ma criticize nañ ma wante criticize boo xam ne nii pour yokka ma te dama ko doon jël bu baax xam ne lii moo ma dimbali pour li ma bugg a def ma mun koo def nit suñ la criticiser ne ko dañ la criticiser pour leer la daaw waaye dañ la criticiser pour dimbale la pour yow nga mun a gën a dem ci kanam te Gambian fans yi loolu lañ def dañ ma doon gën a ñaax pour li ma liggéey ma gën a see mun a dem kanam parce que xëy na ñoom gis nañ loo xam ne nii si man man gisuma ko so ñoom loolu suñ ko waxee génne ko si suma national team bi te loolu maa ngi leen see gërëm bu baax a baax a baax aw ma seen fay maa ngi leen naa wax jaaraama ngeen jërë ngeen jëf fansi euh, ma delluwaat tuuti si coach bi toom euh, am na ay good relationship boo xam ne nii relationship boo xam ne ni dem na ba fa ba passé between coach ak player dañ am relationship boo xam ne nii dañoo dem ba dañoo koolante di wax affaire yi loo xam ne nekkul sax football man ak euh, ak moom ak euh, am na time yoo xam ne nii difficult na te dafa ñëw step up si man mënuma toog benn two three days te duma ko dégg dañ doon wax all the time si lu nekk maa ngi koo gërëm sangdong moom moo ma njëkk a jox captainship eh, bi loolu maa ngi eh, koy gërëm tom ñëw jekkali loolu noonu coaches yi ma yi ma jaar yëpp tros buñ am si man naa ne ñoom duñ musa musuñoo rëccu loolu noonu te man lima liggéey ak ñoom musuma rëccu loolu noonu soo koo ci si yëpp maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf media bi yéen tam maa leen di gërëm bu baax a baax parce soo nekkee ci fil bi di nga dégg lu positif lu négatif lu nekk dinañ ko dégg te loolu si job bi la nekk ñun ñoo ko bokk man personally anything loo xam ne nii luñ ma wax rek duma mu du ma dee musa a wàññi waaye daf ma dee yokka dama dee xool lan moo ci génn si luñ wax ma jël ko ma xam ne lii pour suma njëriñ la waaye nekkul ne ñoo xam ne nii dañ ma bañ fooguma ne Gambien dina bañ moromi so maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp gis naa ni ngeen ñu e. eh, dafa very emotion si si si man because of am na ñeneen ñoo xam ne nii dama leen dee bëgg a su ma leen xalaatee rek xol bi dama dee kontaan wante tamit dama dee am mix feeling euh, suma papa suma oncle bu ma wax noonu mbay gi kooku lu nekk la def ci suma carrière moom tamit moo ma njëkkaa jëlal daali football kooku ay wis na ni nekkoon na fi waaye ñu ko ñaanal fu noonu yàlla xare ko ak Anyways, I just announced my retirement from the national team. The Gerem uh, Federation be what? The Gerem Minister be, the Gerem uh, Government be. Uh, ñëpp maa ngi leen di gërëm ñëpp ñu toog fii nii ñëpp maa ngi tamit uh, waaye maa ngi gërëm ñëpp fi toog fii nii kontaan naa bu baax a baax a baax a baax mu nekk nii maa ngi jël captainship bi di ko paas Omar Koli pour mu continuer because of uh, am naa quality si yum am xam naa nu mel so mun n'ale ti deguba national ti bɛ yen kelen n'a se nasɔnna ti min ye bɔ ka na apelasi bari but lima gisini ni suinlɛn gene di tɛ tɛ dinañ yogo